li ma ci li ma ci bëgg a mooy sëñ Abdou Aziz ñun ñëpp saa yaram lañ wax moo war tool sàngam liggéey benn yoon wax ko tudd te fekk naa ci xam ne doy na sëkk jamono yi ñu tabax jumaa yi Mbàkke am benn kàddu jóge Dakar bi ñëwee ba Daaru Marnaan booba Daaru Daaru Marnaan ak Mbàkke Kajoor kenn tëleegu waa ji wax ne euh, du mën a àgg Mbàkke Kajoor la sëñ bi waxal ak moom ba fay ko waaye waa ji ne mënut a àgg Mbàkke Kajoor Daaru Marnaan la yem ndax fees suuf la dikk wax ko sëñ mu boole leen ak nit ñu dem ñaan waa ji ñaan ñaan ñaan la ñi daan fii ñi daan dox ci suuf si waaw sëñ ina laa maasaa bi ah de wax lépp kon mu wàcce ko fi biñ nee mu wàcce ko waaje ñu ne ko sëñ bi nee na nga wàccee ko fii kon comme mënoo yegg si waaje benn benn benn benn asar bi bañ ko mu benn yenn fa ba benn benn mënut a jóg nit ñi waxtaan ak moom ne ah yow de te ngaa jéem a jàll rek boo ngiroo ñu seet ñu sëñ génn wala nangam nangam yi la xam naa xam mu daal di continuer dem mbàkk ka yow hmm. ba mu am na lu doon te nag yooyu doo dégg ñu ko wax waaw ah, da ngay dégg ñu ñaar ñuy naan ah. maanaam waa ji da da muy ah, loolu laa foofu laa jëmoon <laughs> foofu laa jëmoon nga xam ne waa loolu la ko eh, eh, yàlla baaxe gi ko yàlla na baaxe loolu la jaar jur wala nang wala nangam ak wante baax ak bon mm. nekkul ci njuréel ak ci nangam yonent yàlla noonu am na doom joo xam ne ma nga ca sawara te ku baax bu la doon jur tee nga dem sawara kooku du dem sawara